d'accord si discours bi gi passé gis nañ ci mu ne mu annoncé ay milliards yu bari pour jeunesse bi ban jàngat ka def ci milliards yooyu. c'est bien ay milliards yàgg nañ fi dugg te man li ma gëm mooy Macky Sall yàgg na génne ay milliards. pour création d'emploi mais malheureusement malheureusement ces milliards ont toujours été détournés par ñi nga xamante ni ñoom la koy teg ki seen loxo loolu mooy problème bi mais ay milliards boom état du Sénégal yàgg na ko jël ne fexe leen sax fukki ndaw am ci liggéey mais ñañ koy jox ñoo koy jël kay def ci li ñuy woowee détournement de deniers publics waaye la ma cay condamné waat ca gannaaw ga rek mooy Macky Sall mosu ci ko sanctionné kenn kon loolu tamit yaa angi sous roche am na lu ciy ñuul am na lu ciy ñuul soit daf leen koy jox ñu wàññeeku gëmloo ko ni ko def nañ ko fi ñu ko war a def ndaw ñaa ngi liggéey macha allah jàppal bàyyil moom mu ñàkk vigilance bañ a dem contrôler ji loolu soit ñaar ñii mooy am wala daf leen koy jox déclarer ko mais ci suuf ñu retourner injecté li nga xamante ni mooy benn partie bu gën a ndaw maanaam bu dee cent bu dee cent milliards ñu injecte vingt cinq milliards yi quinze milliards yi ñu wàññeekul ko ñëw ne ko 75 cinq lañ dugal euh, gëmloo gëmloo nañ leen daal ni 100 la ci ci ay chiffres ci ay factures ak yooyu mais vingt 25 lañ injecté alors 75 yi léegi yow da ngay jël 50 ñun ñu seddoo cinq yi pour entretenir suñuy militants wala mën ci entretenir parti bi. dama dama dama dama dama wax ndax est-ce que du noonu la demee mm-hmm. mais Macky Sall. le président de la république man fi mu ne nii mooy suñu interlocuteur. Mm-hmm. suñu yoon newul ci parce que les ministres de Macky Sall ont fini de nous montrer qu'ils sont incapables et incompétents donc notre interlocuteur direct c'est Macky Sall. Mm-hmm. Macky Sall liiral nga reliiraat la dernière lettre de Abdoulaye Wade ton entourage là les jusqu'au boutiste yooyu nekk sawet mm-hmm. faluñ leen. ñu leen kenn du leen topp dara yow lañu ñu fal yow lañu ñu dénk il est temps nga taxaw duma la wax looy ciy def nag mais il est temps nga taxaw lépp li ngay dund bokk nañ ci li la ko yóbbee lépp lu la dal tey bokk nañ ci li la ko yóbbee te lépp lu dal tey Sénégal bokk nañ ci joué nañ ci am nañ ci quinze pour cent de de de de de de de de de de de part de responsabilité mais nag. tey jii ma jël suma dépense di ko joxe te duma ca am lu ma neex sañ naa téye suma dépense wala sañ naa changer ka ma koy jox wala anam bi ma koy joxee kon Macky Sall aussi am na ci à 200 pour cent part de responsabilité. ok maintenant boo doon def benn comparaison ci régime Abdoulaye Wade ak bu Macky Sall qu'allez-vous dire. ci. seen régime. li ma mën a li ma mën a li ma mën a wax daal mooy li nga xamante ni mooy. et surtout si euh, côté démocratie. foofu laay ñëw foofu laay tontu quoi parce que sérieusement ñun Macky Sall bi mu ñëwee ci deuxième tour yi bi mu ñëwee suñu QG euh, liñ ko wax dégg na ko te li ñu wax presse bi aussi mu ngi mu ngi des ci bu ngeen duggee ci internet bi gis ko gëmuñ ni moom mooy kiy changer Sénégal mais au moins liñ doon xaar ci moom. mooy mu préserver suñu acquis démocratique yi liñ doon xaar ci moom mooy au moins as néew acquis des libertés yi ñu amoon bu ko mënul woon yokk mu préserver ko li ñu amoon as lu néew ci justice wala li ñu ñàkkoon ci justice mu renforcer ko li ñu doon xaar ci Macky Sall mooy des pouvoirs séparés des institutions séparées exécutif du mën a nekk exécutif du commander législatif ou judiciaire c'est ce qu'on de Macky Sall alors euh, bu may def comparaison wax dëgg yàlla ak yonent bi mm-hmm. su Wade euh, y au moins ce qu'on la démocratie parce que bu amul woon dama lay jox exemple bu ndaw ah. mm-hmm. li Macky Sall def ba éliminer Karim Wade ak Khalifa Sall mm-hmm. ci ci ci ci ci ci ay joŋante Ablaye Wade mënoon na ko def pour éliminer Macky Sall mais au contraire Macky Ablaye Wade daf ko bàyyi ne ko ñëwal ñu jàkkaarloo sénégalais yi tànn alors kon sérieusement côté boobu moom y a même pas photo boo demee ci côté liberté Ablaye Wade quoi qu'on puisse dire lu ko waaye mën a waxal euh, au moins bu daan def ay affaire am sax daan na daan na daan na déglu askanam ci côté liberté parce que dafa gëmoon loolu moo ñu ko moo ñu ko doon wax donc sérieusement y a même pas y a même pas une comparaison à mais il ne pas trop tard Macky Sall li ko dese ci mandat wam mën na dabu mën na dabu xam ni réew moom surtout Sénégal gii moom Serigne Touba xeex ak tubaab bi ba kenn nootuñu ba ñu nekk des personnes libres maam Alaaji Malick maam Boukounta Ndiassane maam ni maamu laay ak Cheikh Ibrahim kazalika def la même chose je pense que ni réew moomu moom ku yee benn nit à trois heures du matin ne ko réew moomu mën nga dem ba di leen dicter li nga bëgg ñu koy def ah euh, waruloo ko gëm d'accord le ministre Yankhoba Diattara il parle de d'une disqualification de Ousmane Sonko pour les élections de 2024 waa xam nga Yankhoba Diattara comme moom ñoom moom mooy du moom mooy ki nekk ci idi waaw comme ñoom mm-hmm. dañ leen a disqualifié te l' économie numérique ministère de l' économie numérique. waaw xam nga comme ñoom seen parti bi du mooy bu ñoom Idrissa Seck. Mhm. waaw comme ñoom disqualifié nañ seen bopp. ñoom xam nga disqualifié nañ seen bopp. comment ça. disqualifié nañ seen bopp mooy. discrédité nañ déjà seen bopp. Mm. tey jii Idrissa Seck bu taxawoon di joŋonte ak euh, Macky Sall entre Idrissa Seck ak Macky Sall bu ñu doon dem élection. Mm-hmm. moi je voterai Macky Sall. Mm. sérieusement je voterai Macky kon kooku xam nga euh, disqualifié na boppam moom. donc lafeñ borom mbaam lay faral Yankoba Diattara mooy sa Idrissa Seck sa Seck moom mooy mburu mooy soow Macky Sall alors <laughs> donc ñoom fi mu ne nii luy neex Macky Sall rek la ñuy bëgg di wax mm. waaye jom nit da nga ko war a am te maa ngi maa ngi maa ngi soog a dégg nga lii nii mais bu dee ba moo wax loolu mm. franchement Yankoba euh, c'est quelqu'un que je respectais mm. mais vraiment il a plus mon respect sérieusement quoi sérieusement il a plus mon respect waaw. Ouais. en tant que jeune sa dernier mot ban conseil ngay jox ban message ngay lancé jeune jeunesse su sénégalais surtout actuellement ak euh, tension yi ni mu bëree. message bi may lancé mooy le patriotisme le don de soi c'est le peuple qui doit libérer les populations c'est le peuple qui doit libérer le pays. c'est le peuple qui doit dicter sa loi c'est le peuple qui a le dernier mot donc restons mobilisés parce que y des échéances à venir maanaam ay mbir a ngi ñëw ci kanam donc nañu garder li ñuy woowee cette mobilisation bi am mooy maanaam tey jii on a fini de comprendre que ni Sénégal kese moo ñu ñor te képp ku nar a jël Sénégal teg ko ci anam yoo xamante ni neexut ñu wala arrangé wul Sénégal dinañ taxaw jàkkaarloog yow di wax tamit kii ñëw jàppalewuñu kenn ñun askanu Sénégal pour mu arriver au pouvoir xeexuñu kenn pour mu jëlee ko ci pouvoir mais dañuy xeex ànd bokk gis-gis pour teg Sénégal ci raay donc que le peuple soit conscient que que le peuple reste euh, de de de rester euh, continue d'être conscient parce que voilà quoi le peuple euh, c'est un peuple conscient mais bu ñu mës a nelaw bu ñu mësa nelaw le combat vient de commencer quand je dis le combat vient de commencer nag beaucoup pense que je fais allusion à Macky Sall Macky Sall c'est juste benn xeer bu nekk ci sunu yoon donc da nga koy def nii pousse ndànk rek nga continuer mais nous avons un long chemin à faire nu def Macky Sall à l'oubliette te di ko invité moom le président de la république ci mu jëmmal li nga xamante ni wax na ko ci ay acte dëkk bu neex a am jàmm la dëkk bu neex a amee jàmm la dëkk bu neex a créer toutes les conditions sont là pour que la paix euh, pour que la paix règne dans ce pays alors de grâce le président de la république euh, vous êtes le premier invité ci loolu donc 2024 euh, c'est pas loin continuez xoolal noo toppatoowee sa askan xoolal nooy def ba booy génn booy dem duñ la jéppi man loolu laa am ci loo xamante ni en tant que notre président et mon grand frère ci lu ma lay wax n'écoute pas ce qui euh, euh, les gens qui vous entourent bu leen déglu écoute ton peuple écoute ton peuple yow yaay suñu interlocuteur yow lañu ñu fal faluñu ma Samba wala ma Demba yàlla defal la jàmm def ko ci Sénégal. def ko ci mboolem ku koy sàkku. wasalaam. je vous remercie Kilifeu merci également aux internautes et que xam nañ ne ça a été vraiment difficile à ce que nga accordé affaire bi merci merci beaucoup encore une fois chers internautes merci beaucoup c'était tout pour votre émission réponse à l'actu à la prochaine.